journée sociale jeunesse en marche vers 2019 jibal naka samedi yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci avril étape bu njëkk bu nu amal ci orphelinat bi nekk ci Touba. waaye yéen ñi moom seen famille ñun suñ ndaw yi. indi seen ndimbal jëmale ko si moomin yi nekk si barab bii doon ay baayo te nag di tumuranke ci ay jumtukaay wala ay jëfandikoo yi ñuy itteewu bis bu yàlla sàkk li ko tàmbalee si saabu omon dugub toftal ci dund gu bari lu si mel ni ay meew ay couche également ak yeneen ak yeneen ak xeetu jumtukaay buñ ko doon sax ma daanaka jóge na million loole la ndaw yi jébal pouponnière bii nekk fii si Touba ci délégation bu mag jeunesse en marche vers 2019 am ci ndimbalu excellence Pathé njiit yi APR ñëw jébbal don bu am solo bii kilifa yi orphelinat bi nekk ci Touba. programme mu jàppale boobu nag nekkut politique yoo xam ne politique wax la nii rek wala ñëw di dégg nit ñi ñu xalaat ci toog daan ne gannaaw ba nag yéen yéen a ngi jàppale tout tànk yi ci ndigalal yàlla yi nga xam ne moo leen ko njëkk a sant ak tamit yërmaane ji nga xam ne suñ borom daf ñu ko sant ñun ñëpp ndax yonente di keroog bi ko suñ borom yabalee muy ñëw lim ko wax daf na ko wama arsalnaaka ilaa rahmatan lil alamina dama laa yabal ngir nga nekk mbind yërmande mbindeef yi kon nag jël tout tànk boo xam ne waajuram defee bàyyi ko nga nekk bonne volonté di ko dimbalee day dugg ci laaya boobu moo wax sànq moo tax ñun tamit ñu neen jàppale président de la république mooy jàppale askan wi mooy jàppale xale yi moo tax ñun ñu jël suñu effort yi ñu am yépp def ko tey pour ñëw fii bokk ak yéen li ngeen xam ne si ngeen nekk te tey dañ ko tàmbali waaye bu séen nañ à tout moment ñu ñëw ànd ci yéen ànd ci ak tamit mooy président Macky Sall ànd ci ak tamit son excellence Pathé comme ni ko suma sœur Mame Diarra Ndaw waxee. journée bi waylaago yi nekk ci Touba ñoo doon jël seen wàll ñoom it enveloppe bu mag toll ci juróom fukki junni la leen ndaw yi jagleel ngir nag ñu mën ci jàppandiku. lii nga xam ne nag xëy nañ tey pour def ko ginnaaw euh, bu ci. ki nga xam ne moom mooy ambassadeur euh, Pathé Diakhaté bi nga xam ne ku nekk xam na wax dëgg yàlla taxawaayu ci dëkk bi parce que ku ne xam ne ne bu njëkk ba ah li fi amoon amoon ci politiciens yi nga xam ne ñoo fi njëkk a jaar mën naa ne dañuy jël ndaw ñi wala dañuy jël ñi nga xam ne mooy askan wi chaque jour di leen nax di leen utiliser pour seen ay intérêt bopp mais su fekkee nit ñëw na fas yéene non seulement li nga xam ne moom la am mu koy jàppalee ñi nga xam ne ñoom ñooy jeunes yi ànd ak moom ci parteem ñu taxaw ne fépp fu ndaw Touba Touba nekk wala jigéenu Touba nekk fu mu mën a doon moom dina fa dem ba fekk leen fa mu dugal loxoom ci lañ la xam ne moom la ñuy liggéey moo xam ci lu mën a nekk yaakaar naa ni ñu ko defee ci orphelinat ba noonu lañ ko defee fa euh, ñëwee fii def ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy handicapé yi fi nekk nga xam ne aussi ku leen xam tamit xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw buñ ko waxee ak bu ñu ko waxul yépp soxla nañ ku leen dimbal kuréel gi sosu ànd ak ndaw yëpp kër leader bu nekk ndaw jóge na fa bokk ci kuréel gi amuñu benn yitte lu dul falaat président Macky Sall au premier tour loolu rek mooy suñu yitte. boobu ndax jàpp ngeen ne mën waaw mën nañ ko atteindre ndax li tax mën nañ ko atteindre mooy jeunesse en marche dafa changé li doxalin bi fi nekkoon ndax ku ne xam na ni xiiro ak ngaayoo wala coow ak lu mënti xew kenn du ci dégg turu jeunesse en marche. biñ ko dooree kër gu nekk dem nañ fa leader bu nekk seeti nañ la waxtaan ceeg yow nga rafet lu ko son excellence Pate Diakhaté doon ki ci gën a fés financièrement parce que ca journée lancement ba ba fii may waxee yow lépp lu ñu yëkkati daf ciy ànd ak ñun dem nañ ba ne ko kuréel gi définitivement nga xam ne mooy parrain wu jeunesse en marche suñu programme bi moom moo yëkkati 1 million 500 jox ñu pour ñu dem defi ko. bureau fédération des handicapés bi doon recevoir don bi ci seen dal bi nekk ci tali bu bees. wane seen mbégte ak kontaan yi. dama doo sant yàlla Pate daf ñuy woo sax ànd ak ñun liggéey ñaan bu ma sañoon bu mu génn ci buntu kër gi ndax li ma yàlla defal du sama mën-mën moo tax lii lii leen yàlla teg aussi du seen néew doole moo tax yàlla mooy binde nu ko neex kon loolu lu dëggu la ci moom dëgg googu aussi moom nan xam ci moom moo tax ñu ànd ak moom di liggéey mus ñoo jóg ci moom saa su ne ñoo ngi topp ci gannaawam di ko liggéeyal te saa bu ñu bokkee jataay nii nu ko waxe noonu lañ ko koy waxee ñoo ngi sa gannaaw guddi ak bëccëg loo nekk ñu ànd seeg yow parce que mënatuñu ànd kenn ku dul yow parce que yëg-yëg bi nga am fii ci ñun handicapé yëpp yow rek lañ gis nga am fii yëg-yëg bu ni toll. ndaw yi nag di jeunesse en marche vers 2019 biral également seen mission nee nag du ñu tegg seen tànk kuréel gii gin koy sos bokk na si activité yu mel nii te nag am nañu plan d'action yu gën a xóot mel na ni jeunesse en marche ñi ngi dox vers 2019 comme ni ñu koy wuyoo ndaxte ñetti weer ci sunu ginnaaw ñi ngi doon amal ay tournée ci chantier yi nguur gi jébal fii ci Touba